ku mus a woote sa njëlbeen metti na lool ma Baye laay bi mu ñëw ay lébu la fi fekk te convaincre lébu yombul mu taxaw yuuxa loxoom joxoñ aji bu daa yàllaahi ñun lébu yi yaa maa sëral jinni wala insi inni rasulullahi ilaykum aseñ ah, bi mu départ yuuxu loolu rek inni rasulullahi ilaykum naka la dundeek lébu yi jamono jooju ba mën leen a ba tey boo duggee laay laay laay maxtaar boo ci génnee lébu dara du ci des ah Mohamed yónente ba mu wootee ba mu wootee ay mbokkam lan la ko Abu bu wax tabban laka hada ñu saaga ko indi rasulullahi problème génn ko màkk xam naa nan ko xam naa eh, boo jàngee taarixu islam ñu génn yonent bi màkk si de mën naa bu bu bu bu gàttul woon ma wax la ñaata at la def mag ñaata at la def Médine ah si de Aji Malik kenn du moom ñaata at la fa def yonent bi ay jafe-jafe la amoon màkk keroog bi Omar tuubee ci la yëpp si commencé di di sulleeku keroog bi Omar parce que Omar yonent bi moo ne allahuma ayadawul islam bi ak daa ama rëy ni hmm. am ne hmm. yonent bi moo ne yàlla doomu dimbali ci lislaam ci ñaari Omar yii mu dar Omar ibnu Xataab hmm. ci gàttal leer gi dugg ca dënn ba Omar yëkkati jaaseem jël fasam warka kan la dajeeg Nuhaym ibnu Abdullah lu mu ko wax uridu an asab ila Muhammad mun ko foo jëm mun nga ci Mouhamed laa jëm dama koy rey ila alika seeti sa famille sa rakk bu jigéen sa cousin xat aslama tuub nañu lu xew mu ñëw la fa xew la fa xew Omar moo ñëwal boppam ci gàttal nangu fooy bi Fatima yoroon ci gàttal mu xool ko gis yàlla fa bismillahi rahmaani rahim taha ma anzalna ilayka alquran ila axiri aaya xool ma di soog a leer mu ne waa du ngeen ma tëkkal fi Seydina Mouhamed ne ñu ne ko ma nga daaw daa ma nga ca daaru araf moog saaba yi maa ngi yow Mohamed damay jaar fii rek day leer naaj de euh, ni ko arrahmaanu ala arsi stawa <laughs> macha allah nga ma nga daaru saaba yi ñu toog fa mhm. ba ñu fa toogee yonent bi dafa gis seen omar di ñëw saaba yi seen omar di ñu daw làqatu ci ginnaaw rasulillah Moustapha ni ñokk a jóg omar jox ko loxoom omar nee na ci laa xam ne kii yàlla ak yónni mu ne nag jeextu ko la am na asadu an laa ilaha illa allah wa asadu annaka rasulullah Muhammad islam am 40 xanaa kon yeneen bi si noonu na. Bilal taxaw di nodd allahu akbar ci tax bi Omar ne eh Bilal taxawal ni yonente bu fekkee yaa ne ci dëgg ne Bilal tox taj bi yéeg ca kaw nodd bu fekkee du dëgg kon kon ma delluwaat ci kéefër gi mun nga ah kay ca la Omar toja tax ba ni Bilal noddal ba kenn wax. maam El Hadj maa ngi ne man fekk naa ko maa xam ne xew. keroog ku ni mël ci mbeddu Mbàkke yi seen muy Omar nga ni oh Omar a fa ne maa ngi wàññeeku koo dajal sa waay demoo nga ne Omar a fa ne ku bëgg tënj sa jabar demal man maa ngi ñibbi ndax Omar maam alaaji maa ngi neen fekk naa ko innoom xaraju min baax di kaw ne min baax di kaw ne hin la zoj lan riyaza wa bi nabi aslamal faaruqi summa bihi wallaay ndeysaan الخروج لنحو المسجد القرني موضوع موضوع موضوع Malick Fa waa daaram loo Kumba Caam waay jafe-jafe boobu la yonent bi amoon waaye Mohamed fàtte ko sax xam nga ko ku ma saan judd màkk am na benn këll bu ñu lay dëpp ban ko dëppee yonent bi fan falaxat la Serigne Ablaye wax teel way nag sëñ bi dama bëgg ngay waxtaan. Hmm. di way Sénégal gépp di kontaan. waaw jeex na waaw waaw. <laughs> gis nga maam sa jaaj Malick nee na. këll la bu ñu dëppoon Rasulullah dafa toj. am déet daal bi ñu ko dëppaatee fii bàyyi laa yaa Seyda dafa toj. Ah, waaw. xërëm kenn di ñëw. di seet njool màkk waaye fii góor gu naan Lamine Konte damooy ñëwoon tongoor ñu ne ko xool nu kii ndax li muy wax dëgg la weexal leen bu baaba ca nekkoon mu fën ko ni leen kii mooy yonente bi bàyyi leen jàmbur. nijaayam dem ca ma ñu ne ko sa doom ji dafa dof moom la li baax ñu naan nijaay ja dem ca mbaar ma toog. waaw waaw waa mbaar ma naan ga bul fi toog. fajal li a li maamuy door a sa doom ju baax ja jëmmi naa li baax ñang li mu waxaat foofu mu naan tubaab di jël wolof dëju dégg ndax gëm ya ñëpp a jàngunoo ñi mel ni man dañuy béjoo werante sarfa moom mëdu ñi mel ni man dañuy béjoo ku sopp Seydina Ali moomu waxal maa la wax li yaa seyda boo ma dégg tubaab bi ñoo arab yi ñoom jëkkoon ci yoonu nab bi yoo wolof di xaar mu jóg jamaan eh, saamaam limaamul mahadi wolof di xaar mu jóg jamaan laa ilaaha illallaah limaamul mahadi wolof di xaar nga foofu lan mooy assurance bi lan la wax ñu def ko mu ni subaana maa ko yéene woon déglul ñu boole xol li ndax ñu man te jéem a ña jiitu woon ñun xorat jafe-jafe yi bàyyi lay am yoof bi mu juddoo lébu dañu daan taxaw di dox ci kaw géej gi am na benn mool waa yoo foog may déglu li bu yaa ngi may déglu ku naan maali ñang yàggul fii da daan dugg tefesu yoof gii jël ëmbam def ci ay yërëm neen maa ngi dem ndar te ñëw dem ndar ñëwaat ñaal ko wax fii lébu yi kon moo gisaat yooyu jaaxalu leen moo tax bàyyi laay mun nu koo d'accord nu jéggal ma ñu daan taxaw di tuur ndox di ay jigéen xam yaa këram ya bëri fa ak la fa xewoon ak la fa xewoon faw faw yonent bi ñëwaat raxasaat loolu mu set ci du baax lépp yi taxaw taxaw alaaji Omar Fuuti Taal oote xeex ca ca ca Fuuta waa Yoof def délégation ñëw bàyyi Seydina Limaamu bokk ca bi mu ca bokkee ñuy laaj délégation yi ana délégation bi jóge tànk booba fii tuddagul Cap-Vert tànk tuddoon ñu ne ana bi jóge tànk ñu ne leen ñu ngi nii ku ko jiite ñu ne kii Omar Fuuti leen dellu leen bu ngeen demee ku fa judd tudd leen que Limaamu lan moo tax Ilias labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka inna alhamda wa nimata laka wal mulk laa sharika lak moom la déggaat fii moom la déggaat fii ci Yoff Alaaji Omar Fuuti yi moo ko dégg moo ko wax leen ni leen su ngeen demee ku fa juddu na doon limaamu lan la dégg mu dégg ci ndiggu maam Alsaan Caw mi jur limaamu allah jëfe jafe yii la bàyyi laay doon commencé am yoof ñu ne ko limaamu aw daxaa dof bàyyi laay avant muy woote da leen commencé di wan moojizaat yi avant tëbul rek woote de wan na leen lu ne moojizaat bi gën a rëy wallahi puus géej dara gënu kaa rëy ci moojizaat waaye limaamu ay moroom yu mu daan àndal dañuy dàqante ci tefes gi ñu koy seetlu buñ ko dàqantee day jël suuf rek off leen ñëpp ñëpp nekk néew ci saasi am na mu jël jëlaat suuf sottiwaat leen ko nu jógaat bàyyi ndax bay dàqanteeg ay moromam ci tefes gi bul fàttaliwul ko démb xadijatu moo ko embauché woon mu ànd ak maysarata muy sàmmi waaye fii mu nekkaat libu di nappaat bàyyi laay dafa yoroon métier mu amee 40 ans pile yàlla ma yónni yow da nga dof ñu ko këram nangu la ñu jëkk ci Seydina Limaamu sa doom jël doom ja nangu ka nangu ay seeni soxna wallaahi azim Mohamed bàyyi laay lii la amoon jafe-jafe bi nangu soxnaam yëpp ba mu des maam faati mi jur maam Seydina Isa mi jur sama baay moom la ñu yóbbu ca tóngóor yeew ko muy ci guddi gi asamaan xalaa sa salaatu xayri ne nëw mi bàyyi laay ubbi bi ni kookar la mu ne budd kay ëllëg loo jur limaamu lay doon muy Seydina Isa mii bàyyi laay taxaw 40 ans mag raan ci weeru saabaan lamaa fa laxa laaw sub an inda samsi yow man ak la bàyyi laay taxaw hé taxaw ci biir yëpp di wëndaalu naan laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah asamaan set dimanche dimanche la bàyyi laay xëy fajar ubbi bunti néegam nee na ma téen gis malaaka yi xar benn asamaan bu juróom-ñaar nu yor ay tabala di tëgg raan bul way moom la way jin woo njin jubul neen njinum yàlla raw leen ëllëgte mu laaj leen fasamak walam seydéero wa raxmaan o danay maadiyo bayaaram bala ko ba day yaabu leen Mohamed bàyyi laay dafa teen malaaka yi di doon tebe la lu mu doon njinooy njin eh. hiino njiinum yàlla jib na laa ilaha illallah maa la ko wax laa ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam maa la wax loolu diino diinum yàlla jib na Muhammad njiin lan mooy firi njiin tabala la dung dung dung déglu leen am na lu xew moo tax mu ne njiinoo njiin jibul nen njiinum yàlla jib duqa yow yaa tëgg ndëndum yàlla mii yaa woote yaa woote yaa woote lëgën الإنس والجن إني رسول الله moomen bi mu waxee lii la jàmm jeex yoof ah amoon na màkk nag xul hoo yi ilay yanno istama nafar min al jinni dañuy déglu alxuraan waaye bu bëccëgee ñu weddi fii ñu ngi naan libaab di yëndu këram bu bëccëgee ñu weddi ko jafe-jafe am yoof nangu nan soxna ya ci gàttal ci gàttal bàyyi laay dem na jafe-jafe am na yoof muy nag yonente bu ne gàddaay war na la yonent bu ne gàddaay war na la bàyyi laay avancé ñëw ba ci armeelu Dakar yi muy bàq ya fa la laay taxaw kabar kabaru néew ñu naan kii dafa dof julli néew lay julli de mu ne àllaay ah, yéen xam xamul de waaye dama oo Dakar ñu bañ seen yàpp yi fii lay mujj ci man moo tax ay ah, moo tax cimetière international Dakar Yoff loolu jaaxal na ma trop man ci laa yee ni laa jànge falaa amee bifam falaa amee bac